man dama jaar ci école de journalisme xam nga journaliste yi dañuy wiir wiiru pour bëgg laa wax lo waaye man du nit ku ragal man nit ku dëggu laa sama waxu démb mooy sama waxu tey dama ma waxoon sa dëj bi rek moom laa waxoon man du xor far kuy tooñ xaw ma lu mu doogee parce que demuma kuy tooñ du ma ko far dëgg la. la ma waxoon mooy bu fekkoon ne benn taalibe def na fi jubali du ma intervenir bu dee sama doom lay du ma intervenir nañ ko yar ndax yar nañ koy yar mooy tax bu ëllëgee bàkkaar bi wàcc waaw jërëjëf Mbacke. waaw Mbacke. waaw yàgg na bu fekkee am na keneen